mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen àndaax ñun si rajo Rewmi FM mi FM émission gox bi nag tey di dalal docteur Sekouna Diatta nekk rek maire bu commune bu Mangagoulack commune la ba nga xam ni mu ngi nekk ci département bu Bignona monsieur le maire docteur Sekouna Diatta ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ni nga nangoo suñu invitation bi. Euh, maa ngi leen di nuyu euh, di nuyu seen euh, auditeurs yi. ñi nekk euh, ci biir réew mi ak euh, bitim réew uh-huh. maa ngi leen di souhaiter bonne fin de semaine uh-huh. di leen euh, baalu ak ci fête bi ñu jógee ni di ñaan euh, suñu borom nangu suñu ñaan. am na solo koor bi. di la baalu ak itam bu baax di baalu ak ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo ñuy euh, déglu di nuyu rek ki nga xam ni moom moo di sama technicien bi nga xam ni moo di Léopold Mbindi monsieur le maire Mangangu làkk tey boo ñu doon présenter commune bi. nan nga ñu koy présenter ngir mbokk auditeurs yi nga xam ni ñu ngiy déglu ngir ñu mën a xam commune bi. Euh, merci euh, Mangagoulack euh, mu ngi nekk si benn commune la bu nekk euh, si département Bignona mu ngi am tey plus de dix mille habitants. mu ngi constitué huit villages huit villages te sur le plan éducation ça fait partie. village yoo xam euh, commune yoo xam ne ñoo abrité première école euh, bu tubaab yi euh, ñëwee fii si si colonisation bi. Mhm. soo ko jëlee si beneen boor bi itam pour ñi ko xamul Mangagoul ak boo déggee barrage hydro agricole bu Afiñam. Afiñam. ci commune Mangagoul ak la nekk te ñu ngi koy réabilité loolu. moo ñuy am na si genre activité yu ñuy mëne foofu am nañu baykat naturellement am nañu sàmmkat euh, am nañu tam euh, géej boo xam ne macha allah. Euh, dafa bëri yoon ay jën sur le plan scolaire aussi dafa nekk commune boo xam ne le tout de scolarité est très élevé waaw tey euh, au fait euh, village bi euh, tur bi fal la fan la sokkeekoo fan la ñëwee. commune Mangagoulack comme ni ma la ko waxee huit villages. Uh-huh. juróom ñett village la. ban ak ban la. Ah, ñu ngi am foofu village de Tandouk Tandouk ki ko xam moo nekkoon chef lieu de canton. Mhm. après moo nekkoon chef lieu d' arrondissement donc après Tandouk am nañu bu tegol après bu tegol am nañu dëkk bu ñu tudd Mangagoulak tour boobu la ñu jël jox ko commune bi parce que maison municipale bi communale bi ci dëkk boobu la nekk. Mangagoulak Mangagoulak moo tax village bi ak commune bi bokku tur après yooyu am nañu village Elana après am nañu Bodé Boutam Jatok ak Afiñam fu barrage bi nekk. am na tam uh, Dila Power nañ ñëwaat si boobu après. Mm lu tax nga ne dafa am histoire euh, village boobu Dila Power bi nga wax. léegi waaw Dila Power euh, dafa nekk euh, benn presqu'île te sànq balaa ma ñëw fii danga doon wax affaire. désenclavement. Mhm. presqu'île boobu non seulement dafa am potentialité ci wàllu tourisme mais malheureusement dafa désenclavé wu. c' est plus facile nga jógee Ziguinchor ak pirogue pour dem foofu ko jógee sama commune dem foofu par la route parce que tali bi vraiment euh, muy loolu. Mhm. d'ailleurs ci navette bi vraiment c'est pas praticable même Jakarta yi dañuy am problème duñ fay jaar dañuy am problème pour euh, rallier village boobu mhm. waaw tey euh, Mangagoulack tey ci biir village bi mhm. euh, ñu ngi doon wax wàllum désenclavement mais laata ñu fa ñëw mais tey li nga xam ni nag moom moo jëm ci wàllum njàng ponk boobu bu am solo la mooy ci wàllum njàng tey ci commune bi ñaata lekkool ngeen fa am ak ndaxam lépp mate na ci li jumtuwaay nit mën a jànge ci biir l'école euh, macha allah ñu ngi am une dizaine d'écoles élémentaires mm-hmm. euh, ñu ngi am euh, quatre CEM mm-hmm. ak benn lycée sans compter euh, école arab yi nekk foofu ouais. kon sur le plan éducation macha allah euh, am nañu ay écoles yu bëri mm-hmm. mais tey écoles yu bëri yooyu dafa soxla commune bi soutenir leen te yow xam nga genre municipalité yi nekk am milieu rural. Mmh. doole bi du bari ah, voilà ay ressources yu bari. Mmh. kon foofu jafe-jafe la et malgré ça euh, ñu ngi am ay résultats yoo xam ne euh, macha allah loolu mooy lan mooy ça parti partie de si suñu priorité parce que école mooy tabax citoyen bu suba. moo tax ñu def ko vraiment suñu priorité waaw. fan ngeen ci toll parce que gis nañ ni école bu tenduk am na ay jafe-jafe yi nga xam ni mi ngi fa ndax fan yii rek gis nañ itam nit ñi duñ ci wax li nga xam ne nag moom moo jëm ci lekkool bi ak màggetaay bi âge bi mu am at yi euh, ndax loolu yow yaa ngi ciy bàyyi xel. xaw ma woon ne am nga information boobu. Mhm. Euh, école Tendouk man fa laa jàngee. fa laa def CI CP c jamono bi may wax ak yow sama classe bi ma nekkoon CP. Mhm. classe boobu kenn nekkatu fa parce que classe bi dafa yàqu toiture bi dafa dafa dem. maanaam xale yi dañuy jàng noonu te amul benn. Ah, dañu leen génne foofu sax kenn benn enseignant sañul dugal foofu xale. loolu wóorul te li ma lay wax nii. Euh, du ci classe boobu la. Mhm. rek classe yu bëri am nañu jafe-jafe yooyu moo tax euh, dama entamé ak sama équipe municipale visite structure de santé visite école yi. pour xam ñu ñu ñëw ci école yi ba pare. parce que école bi ñu ngi ko tabax atum dix neuf cent quarante cinq. waaw ba tey ci jafe-jafe yooyu yéen naka ngeen koy dundee yéen ci biir commune bi. Euh, en tant que ancien élève dafa metti nga gis école bu mel nii école boo xam ne bokk naa si sa sa identité <laughs> parce que tey doo ma mun a bind sama CV te dugaluma foofu école Tandoum boo gisee ci état bu mu nekk tey euh, même ku fa musul jàng ndax koy métti yéene ko sa noon mu dem jàng fa ci état bi mu nekk nii euh, li ma mun a wax mooy parce que duñu ko observer nii il faut ñu agir. nan ngeen di agir. voilà mun nañu agir en tant que ancien élève mun nañu agir te yàlla def na man maa nekk euh, si euh, commune bi dina prochaine réunion bu conseil municipal bi bokk na. ci ay questions yoo xam ne dama koy soumettre conseil bi pour ñu xam conseil bi mairie bi lan la mun a def ci école boobu waaw. ndax école boobu war ñu ko mën a bàyyi. ah non mënul nekk cadre yu bëri cadre yu bëri foofu la leen former. balaa yeneen euh, euh, xam naa la wax naa la chef lieu d'arrondissement bi te boo gisee at bu ñu ko tabax at at yooyu vraiment école jafe na ci mhm. village yi donc cadre yu bëri foofu lañ leen former kon ñun duñu yem ci suñu doole kese dañu lancer appel bépp doomu euh, commune bi wala suñu xarit yi ñoo xam ne mun nañ jàppale ci réhabilitation école boobu Euh, ñu ngi koy lancé appel appel de soutien. ok du ñu yem foofu du ñu yem foofu euh, nañu saisir tam état parce que waxoon naa la suñu doolee dafa. xaw a néew néew. Mhm. kon euh, état aussi dañ koy saisir xam naa ne bu ñu boolee suñu doole ñun ñëpp population yi mairie bi xarit yi ak état bi je sais que mun nañu defaraat école bi ba ku ko gis kontaan. ba ngeen ñëwee nga ne da ngeen teg benn démarche boo xam ne da ngeen di dem xooli école yi. Mhm. ci état bi ñu nekk. Mhm. ba ngeen dooree jotee def loolu ba tey ban constant ngeen ñu mën a wax tey ci anam yi nga xam ne école yi noonu lañ nekkee ci biir commune ba. Euh, li ma mën a wax mooy euh, suñu mandat bi dañuy xool. nan lañ ñu mën a def ba chaque année ñu mën a appuyer école yi parce que wax naa la ko c'est très important mhm. école mooy tabax nit kon war ñu ko seetaanoon cadre bi d'abord cadre bi ensuite euh, aller ci excellence mhm. parce que ñun dañu ne tey sama doom bu juddu Dakar ak sa doom yow bu juddu tànduk war nañu am même disposition mhm. pour mun a def par exemple concours Prytanée militaire am nañu enseignants yi il faut améliorer seen cadre de travail pour ñu mun a am ay résultats yu euh, satisfaisants mhm. ci loolu lañu nekk bu ñu demee ci euh, école par exemple euh, bu Mangagoulak waaw foofu école bi amul mur. mur de clôture mur de amu ko. te mu ngi nekk au bord de la route. loolu urgence la de monsieur le xam naa loolu urgence la urgence la parce que euh, tey ak avénement Jakarta yi. Mhm. wóorul nga bàyyi xale yi surtout bu ñu génnee récréation. ñu nekk si si tali bi euh, lu bëri mun na leen dal foofu. ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, ñooy sàmm gi. exactement exactement il le faut il faut xam naa ne waxoon naa la ko école bi xam naa ne mooy suñu première priorité. Okay. que bu ñu nekkee bu ñu tegee xale yi si euh, cadre boo xam ne xale bi day yàkkamti dem jàng da koy motiver. day motiver xale bi day motiver enseignant bi te loolu vraiment euh, ñu mais est-ce que loolu bu ngeen ci jëlul ay solution tey yaa ngi koy wax motivation day tax xale yi tey jàng bi dafay gën a metti mais loolu la loolu moo tax ma ne la priorité la priorité la warul xaar non non no warul xaar lu ñu mun a am ci moyen dinañ ci taxaw ensuite waxoon naa la primaire dem naa visiter tam CM euh, bu nekk toujours moom Ngoulek. Mhm. parce que dama commencé su ñi gën a jege. bay sa weewu tànk voilà. Mhm. bi ma demee foofu mais li ma dégg foofu daf ma métti lool. mooy lan. mooy principal bi daf ma ne dafa am ay élèves yi nekk collège yoo xam ne. amuñu kayitu juddu. ah saa loolu doy na waar de monsieur le ah loolu lañ ma wax teg ku amul kayitu juddu mënu def examen BFM te lu gën a garaaw mooy principal bi dafa ma ne am na ñoo xam ne même bu ñu leen defaree tey kayit il faut ñu xaar deux ans balaa ñu mun a def examen. kon problème boobu bu amee te ñun ñoo am maire bi moo am responsabilité euh, joxe kayit juddu. Mhm. damay am benn culpabilité. léegi nan nga war a def pour xale yooyu mën a am kayitu juddu ngir ñu mën a def examen naam dina metti dina metti lool dina metti lool ñu ngi war a def recensement ci collège yi pour xam exactement ñaata. élèves ñoo nekk ci situation boobu après ñu saisir autorité yi. Mmh. pour xool ban solution la ñu war a apporter. ci mën a am sax audience foraine. ngir voilà justement foofu lay foofu laay ñëwee. il mmh. faut ñu am c'est une urgence. même bu doon sa deux élèves kese problème bi dafa grave pour ñu bàyyi ko noonu. mais du ñu yem foofu. Mmh. parce que dama ne bu dee problème bi dafa posé wu ci collège. il faut ñu régle ko ci primaire bi balaa élève bi di dem def entrée en sixième wala CFE pour dem collège il faut ñu jël matuwaay yépp pour mu am euh, kayit pour problème bi ma évoqué sànq bañ ko daal. mu bañ a nekk ci benn problème boo xam ne dañ koy dañ koy faral di gis. souvent exactement loolu moom loolu moom dañuy def liggéey bi si si école primaire yi yépp. Mhm. pour identifier personnes yi. Mhm. ensuite saisir qui de droit ci autorité yi. pour ñu mun a solutionner problème boobu bugguma dans un an ñu naan euh, ci sama commune. Mhm. am na élève boo xam ne amul kayit du def examen loolu loolu c'est pas bon. ok bëgg nga arrêté loolu mais tamit abri provisoire yi réalité la foofu. mais mais justement euh, c'est une réalité mais xam nga euh, boo amee volonté politique pour solutionner problème même bu dee. Euh, amoo ay moyens mun nga def plaidoyer mun nga dem si ñi am moyen pour ñu jàppale la. Ouais. boo amulee bul bul rus naan amoo parce que lu ñuy ñaan du pour ñun pour xale yi xale yi dañoo am droit nekk si condition mm ci jàng parce que bu ñu ko amulee mais wax naa la bu dee. bu dee yow am nga canal sa kër c'est plus attrayant pour xale bi mu toog kër gi di seetaan que mu dem ci jàng ci école. Mm-hmm. mais bu demee ci école bi gis ne vraiment la cour est bien motivation amatu fa waaw boo ko defee de façon vraiment waaw bu ñu génnee am nañu petit jardin ah fu ngay inculquer xale yi éducation environnementale ba xale yi dem ba bëgg ñoom environnement bi. bu booba dañu yàkkamti dem école. justement bu ñu duggee classe tam ñu nekk ci ay classes yoo xam ne dañuy kontaan nekk foofu. Mhm. seen enseignants yi gën a motiver wu. yaakaar naa ne bu ñu ko defee euh, li ci des mooy aller vers l'excellence. ok aller vers l'excellence itam euh, ci jamono joojoo wax nga ci wàllum éducation. Mhm. wàllum pacc santé lu am solo la tey euh, ban situation ngay def foofu ndaxam situation njàng mi. moo méngoo ak euh, situation paj mi wala paj mi tane na euh, paj bi xaw na tane tuuti mhm. xaw na tane tuuti mais boo waxee wérgu yaram y a jamais assez de moyens y jamais assez de moyens te foofu tam euh, dama bëgguñ taxaw tuuti xam nga nit bu feebaree bu feebaree mhm. boo ko mënulee faj ci gox bi il faut nga yóbbu ko feneen mooy il faut ñu am ambulance. amuleen ko. am nañu ko sax mais keroog bi ma waxtaanee ak euh, benn ICP euh, bu village bu Diatok. Mhm. mu ne ma ah ñun de am nañu ambulance waaye suñu ñetti pneu yëpp euh, dañu màgget. dañu màgget crevé wu mais dañu màgget. ma ne ko loolu de c'est très grave. ambulance. boo xam ne pneu yi dañuy màgget booy évacuer malade yow nit ñi ci yow lañu yaakaar pour nga egg. fekk moom moo gën a feebar. waaw ambulance bi su feebaree vraiment il faut ñu taxaw ci ça veut dire que il faut ñu xool ak comité de santé locale nañ nañu mun a def pour ñu régler ko parce que bu évacuer malade crevé am accident. loolu scandale lay doon te jamono yi xam nga secteur santé euh, dafa bëri ay problème man man hmm. bugguma hmm. ñu sama sama commune siiw euh, ci parce que ci affaire voilà justement loolu hmm. moo tax euh, dinañ ci taxaw pour lu ñu mun a am lu ñu am par exemple comme ambulance ambulance yooyu nekk am bon état boo xam ne même si yeneen village yi village yi amuñu ko ñu am benn ambulance boo xam ne à tout moment bu ñu ko soxlawee day yóbbu malaat bi te duñu am beneen xalaat. Mhm. est-ce que dina egg fu muy dem. mais monsieur le maire yéen lii bu ñu leen ko waxul fan ngeen ko naroon waxee bu ñu leen ko laajul nii da ngeen doon bàyyi muy jàll. no euh, xam nga man euh, ak sama équipe le 17 février la ñu jël fonction. Mhm. la ñu installé 17 prochain la ñu am trois mois. waaw ñu ngi ci phase diagnostic. xam nga boo defee diagnostic ba pare. Mhm. boo xamee problème ba pare. boo amee yow li nga xalaat ne mun na nekk solution. Mhm. ci ngay mun a dem ci koo xam ne mun na la jàppale ci communication. Mhm. moo tax tey li ñuy def nii def naa ko ci école bi bi ngay wax noonu. Mhm. dama invité sa naataango yu Ziguinchor ñu ñëw visité xool ensemble te bu ñu ko defee tam euh, yaakaar nañ ne euh, du. objectif bi du pour naan euh, ñi nekkoon fii defuñu dara déedéet def nañu lu ñu mën. foofu la seen doole yem. foofu la seen doole yem. on peut pas par contre yow boo ñëwee bu dee da ngay toog di xaar ñoom luñ doon am pour gérer boo ko amee doo mun a def loo xam ne c'est moo tax ma ne la. Euh, duñu yem si koppar boo xam ne état bi dañ koy jox dañuy uti yeneen ressource pour ñu mun a prendre en charge question yooyu. fan ngeen koy utee ressource boobu nga wax. ressources yooyu euh, man deme naan ci sama commune ah ku nekk ki dëkk ci commune bi nga nekk ci commune bi walla ci biir ki ci biti. Mhm. foo mënta doon. considéral sa bopp ko yow maire nga. te bataay bi may mënee tey en tant que maire ku nekk war na ko mëne pour améliorer situation population yi ko sama commune. Euh, macha allah waxoon naa am nga ci retour. oui oui oui hmm. bien sûr bien sûr sama sama commune am na ay docteurs yu xarañ yu nekk si réew mi. nëbatu <laughs> laqatu. non est man pour man. Hmm. pour man euh, ku nekk fi nga nekk. yaa ngi def li nga mën tey taalibe bi hmm. ku ñëw ci yow ba ba ba mu expliquer la problème am mun nga ko jox dara mais yow doo jóg dem di wër taalibe hmm. xanaa nga am sax moo tax ñun suñu stratégie mooy dañuy identifier doomu commune bi mooy nga nekk ci armée mooy nga nekk ci eaux et forêt mooy nga nekk ci enseignement bi mo ci foo munta nekk duñu nañu la solliciter pour xool yow nan nga mun a jàppale commune bi ku nekk fi nga nekk nekk ci sa domaine mm-hmm. noo mu ne jàppale commune bi te wër na ma ne mm-hmm. euh, patriotisme boobu bu ñu am ñun en tant que euh, conseiller municipaux ñeneen ñi am nañ ko mais nit ñi des fois du ñu tëb ni dem di defar dara. Mhm. mais boo demee boo boo boo leen seetsee nga expliquer leen sa projet. Mhm. ne ah lii laa bëgg a def waaye lii laa am comme moyen. Mhm. mais ñoom mun nañu am benn partenaire boo xam ne mun nañ jàppale si benn secteur. te loolu mooy suñu suñu stratégie. bu ñu paree euh, diagnostic bi. dañu bind document boo xam ne. bu dee dañuy dem ci médecin mhm. ñu jox ko pàcc bu médecin yi bu dee enseignement noonu la bu dee waa eaux forêt noonu la mhm. te xam nga ne en problème eaux et forêt am na fa avec coupe de bois am na problème ci loolu la ñuy ñëw tey suñu émission gox bi di dalal docteur Sekouna Diatta nekk maire bu commune bu Mangagoulack euh, mi ngi nekk ci euh, diwaanu Bignona monsieur le maire euh, wax nga ko léegi mbokk yi nag bu ñu bëggee bokk ci émission bi dañu def rekk 88 628 84 84 def 1 wala 88 628 85 85 daal di bés 1 wala 88 628 86 daal di def 1 wax nga ko ci coupe de. bois yooyu noonu sax mhm. problème la parce que bu ñuy wax désenclavement itam coupe de bois di am loolu itam problème la problème bu rëy la problème lu rëy la te man mi nekk jàngalekat nekk spécialiste en écologie su ma gisee sama écosystème mhm. nu mu yàqu dafa mel ni nga gis sa doom jàngaro noonu laa ko gisee. noonu lañ koy bàyyi. justement war ñu ko bàyyi noonu parce que suñu vie ci forêt bi la dépendre surtout boo demee si zone yooyu yoo xam ne lu bëri forêt bi tey boo demee euh, ci marché bi wala nga dem marché syndicat Pikine. Mhm. nga gis ay madd madd yooyu si àll bi la jógee. mais bu ñu ko détruire ah ci at yu ñëw mais du ñu mun a am service yooyu ak produit yooyu loolu mooy lan il faut ñu jóg jóg euh, xeex euh, fléau boobu parce que c'est fléau la lu nekk lii kenn mënu ko seetaan kon nga bokk eaux et nga bañ a bokk eaux et mm-hmm. affaire vie affaire communauté bi ñëpp pa war a jóg euh, def sensibilisation mais def surveillance. nan la ñuy defee surveillance bi. justement euh, boo boo ne boo demee si sama commune euh, am na ay association yoo xam ne dañu surveiller àll bi. dañu surveiller àll bi. Mhm. bu ñu gisee loo xam ne normalul ñu saisir waa eaux et forêts c'est l'occasion aussi may lancer appel euh, état bi pour mu yokk personnel euh, personnel bi eaux et forêts. eaux parce que mun mënuñu. mënuñu nekk fépp ñu nekk fépp. te boo boo jëlee benn agent wala ñaari agent ñu nar a surveiller benn fore ay hectares. Mhm. te yoruñu 4x4 euh, wala ñu yor benn moto xam nga loolu loolu mënu nekk. Mm-hmm. soo buggee def dara il faut nga euh, jël moyen yoo xam ne euh, dalay permettre nga am objectif sa objectif suñu objectif tey mooy gérer mieux la ressource pour mieux gérer la ressource il faut ñu impliquer population bi. Mm-hmm. il faut ñu impliquer population bi. mais ci ci ci noonu impliquer population bi parce que léegi itam. Euh, population bi complice la li ñu war a gis dénoncé duñ ko def dañuy bàyyi na ba mbir mi dem fu sori ñu soog a wax fekk c'est trop tard. oui effectivement euh, tey problème bi xam nga sànq wax naa la affaire éducation environnementale. Mmh. am na loo xam ne investissement à long terme la pour que euh, nit ki. am réflexe mhm. protéger dara il faut mu xam valeur lu muy protéger tey boo boo nee complice nga jël xale au mu nekk école nekkul école mu dem di topp xaritam yi am jakarta mhm. moom mu amul jakarta mais xam na ne bu demee euh, couper ay garab ak complicité ak ñeneen yi dina am ressource ressource pour jënd Jakarta mhm. xale boobu moom Jakarta la gis pour moom intérêt bi mooy Jakarta nan la ñuy def ba xale bi xam ne garab boobu bu ñu war a euh, gor pour am Jakarta moo ëpp valeur fuuf que Jakarta bi ça pose beneen question ci occupation xale yi. Mhm. occupation xale yi dañuy nekk ci région boo xam ne macha allah en terme de ressources am nañ ko il faut ñu am euh, politique boo xam ne. Mhm. dañuy am ay industrie pour am créer emploi. justement nan la ñuy jaar pour créer politique am industrie pour mën a sukkali itam femmes yi soxna yi. Mhm. sukkali itam ndaw ñi ngir ñu mën a am xëy. lu ku nekk am si lu mu jàpp tey bu ko defee Casamance ak ni ñuy wax Casamance potentialité yëpp nga xam ne am na ko ku ci nekk tey mën a gis sa bopp ci mbir mi. mais potentiel bi kenn waxtu ko macha allah potentiel bi mu ngi fi. Mhm. mais potentiel dañ koy exploiter. nan lañ ko war a exploiter tey euh, ko yi commencé na ñor mais fii ba août dañuy yàqu daanu yàqu parce que amuñu politique euh, récupérer produits yi transformer leen localement wala conserver leen ba boo période boo xam ne amuñu ko. ñu mhm. ñu mun ko mettre dans le marché. te loolu boo boo ko defee da ngay créer emploi ñu ngi defar jus. Mhm. mais lu ñu am foofu ay petite unité de transformation. bariwul bariwul bariwul donc état bi. war na euh, vraiment créer ay usine de transformation des fruits gis nga léegi gars yi ni ñu bëggee euh, jus mhm. jus locaux yi loolu opportunité la consommons local la mais pour consommer local il faut ñu xool nan la ñuy def ba produit bi fu ñu koy yi ñu transformer ko ensuite commercialiser. Mm transformation boobu localement mooy andi emploi pour occuper jeunes pour ñu bañ dem ci àll bi di di yàq euh, di dagg garab ci sama gis-gis. Mhm. bu état bi installé ay usines. dina euh, arranger lool. dina yombal mbir mi. exactement ok mais ku ne tamit euh, wax euh, wàllum désenclavement ainsi de suite mais dañuy gis ni à chaque fois gis nañ ko fan yi braquage bi dafay commencer di bari ci ci ci ci yenn ci communes yi ak sa diggante Carrefour jaaru Carrefour. ak fal jaaru mais ak fi nga xam ne moo di Badiouté dañuy gis souvent attaques yi di di est-ce que loolu bu bu yàggee ku mën a am alalam mën a ñëw def foofu investir fa. est-ce que dina am xel mu dal tam loolu ci responsabilité état bi la état moo war a créer condition boo xam ne nit bu amee envie investire mhm. du am risque yaa toujours des risques mais il faut ñu minimiser risques yi. Ouais. loolu c'est dans la responsabilité de de de l'état euh, boo gisee loolu publicité la. Mhm. boo gisee man. foo ma gis ci sama oto boo fa demee di fa fekk euh, ndox Casamance du parce que nu tur bi moo ma ne dafa nekk entrepreneur boo xam ne ci jamono yu metti ñëpp ragal risque investissement foofu moom mu jël risque yooyu dem investir ku nekk loolu la war a def. ku nekk loolu la war a def dafa risqué investir tey gis nañu résultat bi donc si beneen yeneen secteurs yi. Mhm. nit ñi mun nañ dem investir. man boo gisee ma jënd ko c'est pour mu encourager ko ñeneen ñi bu ñu gisee ne malgré situation bi moom mu ci génn di envoyer produit fu nekk ci Sénégal. Mhm. day naan mais écoutez est-ce que mënuñu minimiser risque bi te effectivement loolu lañu war a def. Mhm. ci produits locaux yi ñuy produit foofu. mais loolu itam pour mu am utum jàmm bi ñuy nekk di ut ay ati at mi ngi nii ci loolu itam wax nañ wéer ngànnaay bi itam lu am solo la bu ko defee ñi ngi ñemee. xam nga affaire jàmm bi cycle la est-ce que il faut nga am jàmm pour nga développer wu. ou est-ce que il faut nga développer pour nga am jàmm boo gisee tey dañuy naan ah, bracage mais bu ñuy naan braquage ñëpp dinañu xool côté euh, rebelle yi mm-hmm. mais très souvent mën na bañ a nekk rebelle yi des bandits voilà des bandits yoo xam ne dañuy profité ci situation bi ci situation bi même man man mii damay jël ay risques quel que soit le nombre de braquages bii am ci tali bi il faut ma dem sama kër sama commune. baa musuloo ci am problème ci yoon. Euh, <laughs> non non no jusque là non. Mhm. te maa ngi ñaan. Euh, mu bañ a am kay ñu kay mu bañ a am foofu kay ci ci ci zone bi parce que loolu itam. day tax euh, dëkk bi gën a am dayoo. ça c'est vrai. ça c'est vrai mais loolu ñëpp a war a liggéey. Mhm. pour jàmm am Casamance. Mhm. pour Casamance jouer rôle bu mu war a jouer yow tey euh, ñu bëri quitté nañu foofu. Mhm. ñëw Dakar ah nañu village dem ci ville yi. alors que ñi quitté ñooñu war a liggéey suuf si lan la ñuy def ba ñooñu des. sànq si début émission bi dama la ne barrage Affiniam. Mhm. ci sama commune la nekk. loolu opportunité la. oui pour euh, mbéy mi. mais est-ce que l'État li mu fa war a def mu ko fay def foofu barrage bu Affiniam. non euh, barrage bi 2019 lañ ko réhabilité te 2019 ba léegi ah, ouvrage bii rek moo fa moo fa nekk. waaye amul dara lu fa am. gisaguma dara parce que man yàlla def na chaque année dama fay yóbbu suñu étudiants yi fii Dakar. Mhm. étudiants yi dama leen yóbbu Casamance pour ñu gis potentialité yi parce que am na loo xam ne ñu ngi leen enseigner loolu fii. Mhm. te mënuñu ko gis fii. il faut ñu voyager ñu xam yàlla lan mooy réalité yeneen euh, zone yu Sénégal yi. parce que ñoom ñoo war a jël ëllëg. Mhm. avenir avenir état bi mais barrage bi ouvrage bi. mu ngi def liggéeyam bu tawee day retenir ndox mi. Mhm. ndox mi foofu mais ndox pour mu am njëriñ il faut nga utiliser ko léegi lan moo des li des mooy aménagement euh, périmètre yi risicole mhm. pour nit ñi mun a béy. est-ce que endiguement sel bi sonalu leen foofu. non justement justement aménagement moo war a njëkk euh, njëkk pour régler problème yooyu mhm. parce que problème problème mooy disponibilité eau bi gaara bi mhm. euh, tax na ba ñu am ndox léegi doo am ndox ba pare nga seetaan ndox mi nii depuis deux mille dix neuf léegi mhm. euh, situation bi foofu la nekk pense que état bi war na def tout pour que barrage bi am impact économique bu mu war a am ci loolu mën na régle solution bu bari ci alentour boobu euh, lakk ak li ko wër. ak li ko wër wéy bien sûr loolu opportunité la aujourd'hui ñu ngi wax ay affaire béy mais ñu ngi wax affaire pisciculture. Mhm. mais mun nañu mun nañu ko def foofu mun nañu ko def. je crois que li gën a difficile loolu la ñu def man mënuma comprendre. Mhm. léegi ñu def lu gën a difficile. mooy lan ay mooy ouvrage bi. Mhm. pour mën a retenir ndox mi. waaw te yeggaliwuñ ko. waaw est-ce que gisuñu tey euh, yeewi askan wi nga bokk maire nga moo tax liñ fa war a def comme investissement duñ ko fa def walla yow loolu gisoo loolu. Euh, je je ne pense pas man personnellement honnêtement je ne pense pas. je ne pense pas. mbirum politique que, quoi. parce que parce que justement yeewu askan wi euh, février la ñëw te barrage bi maa ngi leen naan ñu ngi koy réhabilité depuis deux mille dix-neuf mhm. ki ki ma remplacé waa Benno Bokk Yaakaar la donc problème bi du problème. Euh, politique ki nekk politique non no non je pense que euh, amoon na volonté politique. Mhm. ba ñu réaliser ouvrage bi. Euh, il faut ñu continuer si seen logique pour. Euh, mais est que yaa ngi def appel boobu pour ñu ñëw continuer ko parce que itam euh, yaa ngi ki wax bu ko sukkalikoo bu sukkalikoo comme bi day gën a am solo ci commune bi. E, exactement. Mhm. xam nga euh, loolu laa lay wax man damay def diagnostic. Mhm. ba pare bind. parce que boo loo xamul. Mhm. doo mun a argumenter. te wax naa la. foofu lay yóbbu étudiants yi. te bi ñu ma falee ba pare. damaa jël sama équipe. dugg ci dem rendre visite directeur barrage bi te maa ngi koy nuyu au passage ñu waxtaan wax ñu fan lañu tollu ci ci liggéey bi. ok mais en tant que euh, maire même si ça ne relève pas ci sama domaine de compétence. oui am naa droit ci tuuru population bi. Mhm. bind kii de droit ne ko en tout cas ñu ngi lay féliciter si ni nga defaree barrage bi. il faut ñu jàll si beneen étape bi mooy vraiment opérationnalité euh, barrage bi. am na solo wax nga ko sànq. Mhm. def nga ñetti weer. Mhm. Euh, bari na ci commune. Mhm. ja nee nga doon def diagnostic. waaw def nga diagnostic bi lan nga gis ak lan moo war a urgence ak lan ngeen war a def ñu tëj ci ponk boobu. Euh, li ma gis mooy. espoir am na. ah oui espoir am na parce que. potentialité bu ñu am te position bu ñu am mhm. mais waxuma la ko parce que ci wàllu ci wàllu intercommunalité mhm. bu président Sonko woote dama bokk frontière ak Ziguinchor mhm. te frontière boobu mooy fleuve bi fleuve Casamance d'ailleurs am na une bonne partie sama population buy dem Ziguinchor pirogue la ñu jël moo gën a gaaw moo gën a gaaw rapidement nga egg foofu ok donc am nañu position stratégique par rapport à Ziguinchor pour écoulement produits yi mhm. ensuite euh, dañu nekk buntu par rapport à zone Boulouf parce que ñoo gën a jege Ziguinchor mhm. bu dee Ziguinchor c'est un grand marché lépp lu ñuy produire ci Boulouf suñu euh, commune lay jaar pour egg Ziguinchor. Mhm. kon balaa ñeneen ñi di produire. il faut mhm. que sama commune sama commune produire potentiel bi te am na. barrage bi mu ngi fi. Mhm. premier facteur limitant pour production bi man ndox mi am naa ko. deuxième facteur am naa géej troisième facteur am naa àll quatrième facteur am naa rizière kon loolu ku ko am da ngay sant yàlla. Mangagoul ak avenir la. avenir la mhm. suñu objectif mooy eh, def Mangagoul ak benn modèle de développement local mun na nekk il faut nit ñi gëm ko mhm. ñu liggéey pour mu mun a nekk mhm. te loo gëmul euh, mënuloo ci mënuloo ci def voilà loo ci def dara exactement waaw ah. exactement ah, léegi euh, trois mois yi am na solo yéen a ngi ci jàng ngeen yéen a ngi produire papier bi xool lan ngeen war a def wala xam ngeen fi ngeen jëm ba pare. xam nañ ko. ok xam nañ ko xam nañ ko parce que balaa balaa ñu fal ñu amoon naa ñu programme. Mm -hmm. le 9 euh, mars. Mm -hmm. dañuy dañuy mettre en place suñu commission yi. par rapport à suñu domaine de compétence yi. Mhm. Euh, commission bu nekk amoon na ñaari weer pour mu proposer feuille te le 9 bi la ñuy boucler réception rapport u fait de route yi yëpp yëpp suñu ko jotee euh, man ak sama équipe dañ koy xool après ñu programmer benn réunion du conseil municipal mhm. boo xam ne commission bu nekk day ñëw défendre mhm. lu mu proposé comme ça ñeneen ñi euh, am aussi suggestion pour ñu am loo xam ne mhm. bu ñu jëlee secteur enseignement bi ñu xam de façon claire de façon planifiée instant bi lan mooy urgence lan la ñu mën a def dans six mois lan la ñu mën a def dans un an lan la ñu mën a dans te loolu dañ koy def si secteur bu nekk boo xam ne am nañ foofu compétence. Mhm. donc identifier na dañuy andi identifier problème yi ensuite proposer ay solution bu ñu paree il faut ñu ñu partager ko ak population bi. pendant que commission yi di liggéey. Mhm. maag sama équipe dañuy rencontrer pêcheurs yi pour ñu xam lan la ñuy dund. Mhm. ban façon jafe-jafe la ñu am ñoom nan lañu ko gisee. d'ailleurs sax bi ma invité presse bi pour ñëw xool euh, école. école Tandu mhm. euh, dañu profité woon dem ci géej bi pour ñu xool tam euh, pêcheurs yi lan mooy seen jafe-jafe nan la maire bi. mën leen gunge mhm. si seen seen liggéey ci loolu la ñu nekk ok kon daal espoir am na bu baax ci commune bi Mangagulak Mangagulak am na espoir te te yaa ngi waa affaire Mangagulak mais dans deux trois quatre ans mhm. euh, sa naataangoo yi dinañu wàcc Mangagulak mhm. pour xool euh, nan la ñu def pour transformer Euh, commune boobu. am na solo docteur Sekouna Diatta mooy émission gox bi nekk maire bu Mangagoul lakk monsieur le maire euh, mm-hmm. da ngay politique itam Pastef nga bokk Pastef les patriotes. ñu ngi dem ci élection législative yi. Mm-hmm. ni ki tey sax bu minuit bu jotee si la ñu war a arrêté dépôt liste yi fan ngeen toll yéen ci coalition Yewwi Askan Wi ndaxam am yow euh, candidat nga à la candidature ci Yewwi Askan Wi pour mën a dem ci pencum ndaw réew mi. effectivement ñu ngi ci liggéey bi euh, pour ñu mën a déposer suñu list yi balaa ñu de ñu nekk forclos. Mhm. Euh, léegi euh, man personnellement nekkuma candidat. nekkoo candidat. nekkuma candidat mhm. pour députation bi. Mhm. parce que dama considérer que nekkoon naa candidat pour nekk maire ñu jël ma votel ma. Euh, sama objectif mooy euh, def ay transformation ci fu ñu ma voté mhm. euh, pour députation bi je sais que boo jëlee département aussi scolarisé comme Bignona mhm. am na suffisamment de ressources humaines mhm. pour ñu am ay profit yoo xam ne mun nañu defar mais Bignona bëri na de candidats yi bëri nañ waaw waaw waaw bëri na est-ce que du indi frustration ci ñenn ñi justement je pense que ku nekk mën na affiché ambition am mhm. te xam naa ne loolu mooy rendre un peu difficile mhm. choix bi am nañu lu ëpp cent candidats mhm. pour ñaari poste de député euh, loolu bëri na bëri na trop mais yaakaar naa ne euh, commission bi commission nationale d'investiture dina génn profil yoo xam ne euh, ñëpp nañ ci reconnaître te ku nekk euh, liggéey pour yeewi askan wi gagné ci non seulement ci na mais fépp fu ñu présenté candidat mais ba léegi xamaguñ kan mooy seen tête de national ñu ngi wax Ousmane Sonko ñu ngi wax xalifa Sall ñu ngi tudd ñeneen ak ñeneen yow peut-être am nga information bu ñu amul kan mooy tête de euh, liste bi. <laughs> non non non awma amaguma information bi. mais fii ak ngoon dinañ ko xam. war nañ ko xam comme ni ma xamule euh, ñaari. candidat yu sama département. kon yow. Euh, xamaguma xamaguma kan kan la ñuy tànn. Mhm. mais ku mu munta doon dañuy taxaw xeex pour gagner député yi. Mhm. loolu tam c'est valable par rapport à kan mooy diriger liste Yewwi Askan Wi man pour man quel que soit ku ñuy choisir daf fi nekk pour population bi daf fi nekk pour Yewwi Askan Wi man gisuma benn problème. par rapport à ça. est-ce que du réero ba tey xamaguñu euh, ki nga xam ni moom moo nekk tête de liste bi ba tey est-ce que réeroo amul seen seen biir coalition boobu tey. Euh, yaakaaruma ko yaakaaruma ko parce que xam naa observer bien suñu leaders yi. Mm-hmm. te dama am confiance ci conférence des leaders yi. dañuy nekk ay leaders yoo xam ne xam nañu fu ñu jógee. xam nañu fu ñu jëm à partir de ce moment la ku nekk xam na responsabilité am lu mu war a def pour que projet bi bu ñu am am majorité assemblée mën a am. mooy seen option ba tey. mooy suñu option parce que. gëm ngeen ko. bu baax a baax man de gëm naa ko te li ma lay wax ni eh, lu possible la lu possible la. ah ci jamono joo xam ne pouvoir bi mi ngi jël seen i maire di yóbbu yow xanaa pouvoir consulter wu la est-ce que <laughs> yow doo dem fekk ji benn bokk yaakaar kon wala. <laughs> non pense que am na ñoo xam ne bu ñu leen gisee duñu leen jege sax waa yow. bokk naa ci ñooñu parce que man gisuma loo xam ne dina tax ba ma changer bàyyi sama yeewi askan wi dem ci benn bokk yaakaar. gisuma ko moo tax euh, aussi euh, leader yi ak commission bi dañuy war a xool bu baax. Mhm. parce que lan la choisir. lii exemple exact je pense que je pense que euh, commission bi tout comme euh, leader yi euh, jàng nañu lu bëri ci investiture yi passé pour ñu bañ a reproduiraat les mêmes erreurs. Mhm. waaw mm -hmm. parce que du choisir nit pour choisir correct. ak ay qualité ak ay qualité am mhm. yoo xam ne day mën a résister parce que man mënuma comprendre mënuma comprendre ñu élirement par rapport à benn objectif projet la après ma bàyyi ko dem loolu moo tax ma ne la sànq nekkuma candidat pour nekk député parce que am naa déjà programme bi ma bugg a réaliser. boo ci naree boole député day metti. day metti. E, est-ce que ñeneen ñi am nañ maturité boobu noonu. je pense que même bu ñu ko amulee dañu war a am taxawaay boo xam ne dina permettre euh, nit ñi ñu ñu gis euh, aspect boobu parce que c'est important tey man li ma mun a def place bi may occupé tey mhm. ci sama commune ñu bëri mën nañu ko occupé kon man gisuma euh, lu jaral mhm. ma ñu choisir ni tànn ma foofu ba pare ma ñëw encore daw feneen di naan ma damaa bëgg ñu tànn ma encore loolu problème la. problème la léegi parrainage euh, amu leen benn. tiit foofu non non euh, euh, xanaa ñaari fan ngeen def parrainage kon bi ñëw na. ñaari fan. waaw dama xool statistiques yi. no je veux dire deux jours ngeen def parrainage ngeen am li ngeen am. foofu ah, yow yow loolu leer na laaj rek. non non Bignona Bignona xam nga bu dee am na ci réew mi boo xam ne taf taf mu fees uh-huh. <laughs> parce que yéen foofu moom seen. ah non nga fief da nga koy mérité. Uh-huh. te koy won maanaam foo woon defaat benn bokk yaakaar. dóor dóor dóoraat gis nañ seen président mu ne semaine du citoyen waaw euh, du onze ba le dix-sept mhm. euh, est-ce que du mbirum politique moo leen tax a jug yéen ngeen naan burok euh, je ne pense xam nga sànq li ma la wax yépp boo nekkulee boo amulee citoyenneté esprit citoyenneté. Mhm. doo ko mën a def li ma la wax ci xale yi nee naa la il faut ñu am éducation environnementale pour ñu mën a aar àll bi citoyen c'est extrêmement important mm-hmm. te citoyen tey il faut ñu am la ñu naan démarche participative citoyen bi bu xamulee yow li nga xalaat yow fi nga bëgg a jëm noo buggee mu topp la. Mhm. moo tax semaine bi semaine bu am importance la pour non seulement population bu. commune Ziguinchor. Mhm. mais ci ensemble commune yi parce que euh, au-delà de Burok xam nga benn aspect bu am importance ci Burok mooy intercommunalité. Mhm. te maa ngi la koy wax sànq. d'ailleurs d'ailleurs ñun ci suñu gox bi. Euh, zone bu ñuy naan Buluf koo xam département bi ñoo naan am na ay zone mhm. Fogny Kalounay Buluf maire yu Buluf dañu crée benn association mhm. d'accord boo xam ne même benn maire bu commune bu Moulamp boo xam ne bokkul ci yeewu askan wi mhm. bokk na ci association bi loolu parce que gis nañ ne am na ay question yoo xam ne du benn commune moo ko mën a régler te Ousmane Sonko loolu lay woote am na solo mbégte la woon tey ñu kontaan lool dalal la tey ci émission gox bi. Mhm. docteur Sekouna Diatta yow yaay maire bu Mangangulak Mangangulak mi ngi nekk ci département bu na ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak suñu mbokk auditeurs yi. Euh, maa ngi gërëm réew mi FM. Mhm. pour invitation bi. Uh, di gërëm vraiment yow mi. Mhm. ak sa équipe bi yëpp. Uh, di remercier tam sama sama mbokk yi. Mhm. sama population yi. am solo euh, lancer leen appel. Mhm. que te fii développement commune bu ku nekk la concerne. Mhm. nga nekk foofu nga bañ fa nekk ñëpp la concerne. Euh, sama xarit yi itam maa ngi leen di renouveler sama appel. Euh, li ñuy dund instant yi ci côté éducation soxla na vraiment. ku nekk jóg ku nekk jóg def lu mu mën. Mhm. pour ñu sauver système éducatif si sama commune. loolu mun na nekk. Mhm. yaakaar naa ko te yaakaar naa ne nit ñi ñu réagir. Mhm. pour ñu mun a sauver école ma Tandouk. mais au delà de école Tandouk système éducatif ci commune Mourmangue la. am na solo docteur Sekouna Diatta di ko sant di ko gërëm bu baax a baax ci ñun ñu nangule invitation bi di gërëm Léopold Mendy moom mi nga xam ni moo nekkoon ci xarale gi jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo Rewmi FM ci émission gox bi.